mbokk jullit yi ba ñu feddi lee ne borom bi subhaanahu wa taala moo yeyoo ñu sant ndaxte moo sàkk mbindeef yi ba mu leen sàkkee na ay yonent yónni leen ca ñoom ngir ñu jubal leen mu tànn ay téere wàccee ko ci ñoom ngir ñu àtteewoo ca loola ñuy fedd li ne kon ki jooju moom dong moo ñu jaamu ko nguuram gi nag bokk ko kenn ñuy feddliwaat suñu ngëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne borom bi subhaanahu wa moo ko yebal ci ñun ngir mu rëddal ñu yoonu njub ngir mu leeralal ñu nammelu borom bi subhaanahu wa taala ci ñun kooku nga xam ne moo ñu wax ne képp koo xam ne ay atam gudd mu jublu woon ci sahabatul kiram mu ne da nga gis wuute bu yaatu lool ci jullit yi bu yaatu lool ak woroo mu ne waaye jamono jooju su ngeen ko fekkee na ngeen mooy ci suma sunna ak doxalinu ñama wuutu woon te rafetal li sahabatul kiram ridwanullahi alayhim mu sunna boobu ak doxalinu ñooñu na ngeen ci ngoy ba màtt ko ci seeni dëgëj kenn nag bum leen ci génnee mbokk jullit yi ñun ñëpp nañu bokk xoolaat seetluwaat saytuwaat dund bii nga xam ne moom lañuy ñuy dund ci jamono jii ñu toll ca la nga xam ne loolu la ñuy tuddee diine loolu ñuy tuddee diine te ñu jublu ci taxawaayu jullit yi dinañ ci nemmeeku bokkaale bu fés njabar bu fés bidaa bu matale képp koo xam ne mu ngi seet bi te borom bi subhaanahu wa baaxee ko lu mu tuuti tuuti ci leerug diine ci jàngaleb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci quraanul karim nga seet doxalinu jullit yi da gis bokkaale bu bir da nga gis njabar gu wesaaroo da nga gis bidaa bu sampu bokk na ca la ñuy woon bokkaale yooya mooy boo sax da nga dal di gis ay xërëm ak i xàmb ak i xaaw ak i tuur koy dal di gis ñu koy jëfandikoo ci société bi dangay ngay dal di gis ñuy màggal ay bàmmeel di ko wër di ca sukk di ca barkeelu di ko def itam ci ay garab nga gis ñoo xam ne ñu ngi takk ay gàllaaj ca baat yaag ca pëdëx yaag ca ndigg baag ca tikk jara yaag lépp nga gis mu ngi fees dell ak ay gàllaaj da nga gis itam koo waxal buy gëñ dana gëñ ci leneen lu yàlla da gis kii atte itam buy atte day atte leneen lu dul sariya kon société bu mel noonu mbir yu mel noonu nekk ca képp koo xam ne am nag yëg-yëg war naa yëg ne war naa soppi ab taxawaay war naa yëg ne war naa soppi ak demuwaay war naa yëg ne war naa saytuwaat alquranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu xamaat ana yoon wa ci loolu nag ñuy yëg ci lu bir ci qur'anul karim ak sunna yonent bi wa sallam ne bokkaale moo gën a màgg bépp bàkkaar bépp bu doomu aadama di def ci kaw suuf bokkaale moo ko gën a màgg bokkaale boobu la yàlla gën a bañ bokkaale boobu mooy alak doomu aadama bokkaale boobu mooy neenal ay jëfam donte yiw la woon bokkaale boobu moo koy neenal borom bi subhaanahu wa taala ñu ko leeralal joxoñal ñu yonentu bi sallallahu alayhi mu ne ko yow yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam déey naa la ma déeyee ñi la jiitu woon ku nekk ci ñoom ma ne ko boo bokkaalee rek sa jëf day dal di màbb te kon bés penc da ngay bokk ca ñay ñàkk yeyoo ak mbugal kon bokkaale su fekkee taxawaay boobu la ne donte da ngay julli di woor di saraxe boo bokkaalee jëf jooju yépp daal di neen nit ki dem dajeeg borom bi subhaanahu wa taala fekk àndul ak yiw kon loolu boo ko nemmee ko ci société war ngaa seetaat sa bopp ak say ñoñ moom borom bi subhaanahu wa taala man nii day duma jéggal mukk bokkaale be dee ca kooku duma ko jéggal leneen loo indi nag lu dul loola borom bi subhaanahu wa taala mu ne mun naa sukkandiku ci sama yërmande jéggal la bàkkaar lu mu bari bari te bokkaale nekku ca yonent bi sallallahu alayhi sallam ne borom bi subhaanahu wa taala ne na mun naa laa jox lu toll ci yiw te xam nga yiw bi dañ koy ful fukki yoon mu dal di ëpp bàkkaar ba waaja dal di texe bàkkaar lu mu néew néew néew fekkee ne ka ko indi daa indi ashirku billah borom bi subhanahu wa taala mu ne kooku moom dootul bokk te ñay texe ndaxte duma ko xool bëtu yërmande kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala musal bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ na sahabatul kiram mu ne ñëw leen ma wax leen bàkkaar yi gën a màgg mu ne loolu mooy bokkaale mooy dëngee waajur mooy wax fen mbaa seede ko la yonent bi sallallahu alayhi wa mooy al ishraaku billah kon la muy wone moo ca gën a màgg borom bi subhanahu bañ moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaay leen ma waxal leen bàkkaar yi alak doomu aadama ku ko yóbbu bés penc bokk ca ñaay torox di alku la mu ubbee bàkkaar yooyu nga xam ne dañuy alakaate mooy al ishraaku billah mooy bokkaale borom bi subhanahu bokkaale nag li ciy musal borom bi suba li ciy musal jaam bi mooy mu jàng téereeg borom ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu dal di sellal amaan na day kooku dina mucc ci li nga xam ne mooy bokkaale amma li nga xam ne mooy njabar ci suñu société kon loolu moom boo xoolee rek wàllu gu nekk dañ koy dal di gis lay wone njabar bi ni mu fesee mooy njabarkat yi ni ñuy manifesté woo boo dégloo rajo dégg leen boo xoolee télévision gis boo jàngee journal gis leen bal boo jëlee sa portable sax ñu nga gis seeni mbir wala nga gis seeni dugg ak seeni génn ñoom ñépp oo xam rajo ya la télévision yi journaux yi ñoom ñépp bokk nañu ngir dal di wesaare ak njabar ngir dal di ko xacc mu gën a jege ñi nga xam ne ñu ngi dund ci société bi xanaa ñooñu yëguñu ne loolu ñuy def mooy saayu fil ardi fasaada mooy wesaare yàqute ci kaw suuf ndaxte laa yuflihu saaxiru xaysu ata borom bi subhana taala mu ne njabar du texe mukk fu mu mun a joge nu mun a mel lu mun a sàkketu borom bi subhana ne du texe te ku jëm ci moom itam doo texe kon mbir mu mel noonu ku koy wesaare ci société kon kooku day war ragal yàlla daal di dellu siwaat xanaa ñoom dégguñu waxu borom bi subhaanahu wa taala ki mu wax ne am na doomu aadama yoo xam ne ñu ngi taxaw ay taxawaay yoo xam ne soo leen waxee ne bul yàq ci kaw suuf ñu ne la man damay defar njabarkat boobu jàpp na ne fenam yooyu jàpp na ne defar la teqale boobu muy teqale diggante ay nit jàpp na ne defar la sarax yooyu muy digle te mu nekk al bidaa mu nekk zulm mu nekk shirk mu nekk kufr moom jàpp na ne day dal defar ndaxte sarax yooyu ñuy digle lan la bidaa la bokkaale la tooñ la kéeféer ku ko gëm rek am na ndaan boo xam ne day ñëw ci moom la gën a néew ndaan ba mooy da nga julli ñeen fukki fan borom bi subhanahu wa taala mu ne aw ma ci soxla ndaxte zahabta ila sahara aw istamata ilayhim ñeen fukki fan nit di julli ay julli ñaata julli la julli ci biir ñeen fukki fan yooyu yëpp borom bi subhanahu mu ne du ma nangu dara ndaxte yaa dem ci njabarkat yi yaa ngi déglu njabarkat yi loolu nag mooy kañ ba nga dégloo njabarkat bi mu wax ba pare nga ne ko waxoo dëgg lañ lay def sanction boobu amma bam la digalee sarax nag nga ne ko wax nga dëgg nga génnee ko mu wax la nga ne yow dëgg gis nga ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne eh, kafara ma unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku day moom weddina la ñu wàccee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naam weddina ndaxte borom bi subhanahu wa ta'ala def la ko ne ta'allumu sihri kufrun jang njabar rek kefir yunus bi sallallahu alaihi wasallam neñu man ataka hinan wa saddaqahu fima yaqul faqad kafara ma unzila ala muhammadin idan hadha kafara mu ne képp koo xam ne dem na ci njabarkat mu waxal la nga ne ko wax nga dëgg lam la digal nga def ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ne alquran moom weddi nga ko kon loolu ñu dal di ci bàyyi xel bu baax a baax te ñu dal ci mucc ci jamono ah doon na lu jafe lool kon borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu ñooñu ak ña leen di jàppale boo leen ne bu leen yàq ñu ne déedéet ñun kay yàqu ñu innama nahnu muslihu ñu ne ñun dañuy defar de dañuy dimbale nit ñi ci seen wërsëg yi dañuy dimbale nit ñi ci seen sëy yi dañuy dimbale nit ñi ci seen tukki yi wallahi kazabu seen nañu de ku munalul boppam nooy munalee keneen لا يعلمون الغيب كن خمود نفاد لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله ندك أسمانا ندك سو كن خمود ألت إلا الله كون جبرك بوبو وخلا ألت نغمكو كون كفرت هذه الآية كون ودي الآية بوبو كون لولو ننشي دال دي باي خلبو باخ بروم بنا دال دي فدلي من خمولين ألا إنهم هم المفسدون inna hum hum al mufsidun saytu lan nañu arab gis nañu doole waxu borom bi subhaanahu wa taala ndaxte da koo dëgëral inna hum ñoom ñi hum ñoom dong nag al mufsidun ñoo yàqkat kon keneen loo yàq ci kaw suuf boo ci seen yàq ñoom kon loolu nit ki da ciy war a bàyyi xel saytu ci moom ci boppam dal di saytu ak njobootam bu dee waxu borom bi subhaanahu wa ci lii nga xam ne mooy bonu shirk dinañ gis ne borom bi jàng bi sax la xaraamal moom ñu gis borom bi subhanahu wa taala dañu wax ne wa ma kafara sulayman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakayn bi وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أهد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر لور رجل فلا خمن al-yahud الله alayhim ba ñu dundee njabar di ko wesaare léegi nag noppaleku nañu hunaaka man hum axbas min al yahud léegi gis na ñoo xam ne ñoo gën a bon vif gën leen a féete gannaaw alladina yurawijuuna sixra ñi nga xam ne léegi dañuy manifesté wu ci njabar ñooñu ñoo askanaloon njabar suleyman alayhi borom bi waxul ne suleyman njabarul de daa wax ne suleyman du yéefir ah, kon nag kay jàng njabar di ko jàngale ak ñaay dem ca ñoom di leen gëm fii hukmil ñoom ñu ngi atte kéefir des nag dina leen génnee ci milla wala leen génnee ci milla waaye hum fii fii hukmil kufr ñoom ñu ngi ci atte kéefir fekkoon ne nag islam mooy atte saaxir moom ah darbu sayfi ala unuqi laa yuqbalu tawbatu li annahu laa yumanu min sidqi fekkoon ne islam ay atte moom njabarkat moom bu wéree ne njabarkat rendi rek ku murtat sax bu ne tuub naa ñu ne ko waaw waaye njabarkat moom kullu saahirin kazzab ndaxte kenn du wóolu waxam fenkat la bu ñu noon day tuub ñu ne ko uuhu uh, uh. saahir duñ ko nangu loolu rey rek rey rek kon bu ñu demee ba sexru toll nii kon dañuy seet société bi lañuy ñuy tuddee diine dañ ko war a seetaat bu baax a baax kon borom bi subhaanahu wa mu ne seytaane yooyu day ñoom ñoo génn topp ndaxte ñooy jàngale njabar te nag fitna boobu duñu jàngal kenn nag lu dul ñu ne ko ah ñun dañu yónni ngir ñu nattu ñi gëmul fala takfur bul weddi de bi maanaa laa tataallam sihra fa takfura billah bul jàng njeber nga weddi borom bi waaye gars yi insisté ne ñun day dañuy jàng fa taallamu wa kafaru ñu dal di jàng nag dal weddi borom bi subhanahu wa taala borom bi junjal ñu ci njabar rek mu ne no loolu ñuy jàng nag amul njariñ amul benn benn benn njariñ ndaxte lu tax wa yataallamuuna minhuma maa yufarriquuna bihi bayna al mar'i wa zawji mu ne bokk na ca la ñuy jàng nu ñuy def ba teqale ñaar ñuy sëy xam ni loolu jàmm nekku ci saaxir mal'uun njabarkat moom fu mu ne dañ koo rëbb ndaxte njabarkat buggul jàmm njabarkat buggul déggoo njabarkat buggul wér njabarkat am wërsëg njabarkat ku mu bëgg rek mooy ki dal di taxaw dal di jaaxle feebar na wala xuloo na wala xeex na ñu ko wala jàpp na ne day torox kon nag njabar ak ki koy def ak kii jëm ci moom ñépp dañu torox fecckat beeg li mu yées yépp moo tane njabarkat ndaxte fecckat moom li mu bëgg mooy jàmm li mu bëgg mooy wér li mu bëgg mooy déggoo li mu bëgg mooy alal buy jub dëkk sax loolu lay dal di ñaan yàlla naa fi fekk jàmm yàlla naa fi fekk déggo yàlla bu ma fi fekk xeex yàlla bu ma fekk xiiroo yàlla bu ma fekk ŋaayoo yàlla bu ma fekk ku feebar ndaxte kum fa fekk rek moom mbiram du dal du sotti kon xoolal fecckat bii ni muy baree caaxaan ak ni muy yéesee ak ni mu gënee njabarkat bii ak ñaay dem ca njabar ibadallah istaghfirullaha mina ya ta'awwadu billahi min ash-shihri was-sahara inna allaha ghafurur rahim mbok jullit yi ni nga xamee ne alquranul karim leeral na mbonu njabar ak ka nga xam ne mu ngi jëm ca ñoom noonu itam la ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leerale ngir moytu looñu lii nga xam ne mooy njabar ngir ca dem buñ ko gëm buñ ko jàng ndaxte fitna nala te day yàq diggante nit ki ak boromam day yàq diggante nit ki dëkkandoom bal day yàq diggante nit sax ak waajuram mbaa soxnaam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne moytu leen juróom ñaari bàkkaar yi nga xam ne day alak boromam juróom ñaari ñaawteef yi nga xam ne day jur bàkkaar buy alak boromam mu daldi di tàmbale ci bokkaale mu teg njabar teg rey bakkan xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu dugal njabar diggante bokkaale ak rey bakkan ci tooñ bokkaale rey bakkan ci tooñ bokkaale borom subhanahu wa taala wax na ne ku ko deewaale du ko jéggal rey bakkan mu ne képp koo xam ne faat na bakkan buy jullit te moom moo ko tey borom bi mere na ko dina ko dugal safara ci diggante boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugal as seer muy lii nga xam ne mooy njabar kon foofu la ñuy gisee ak mbonam ndaxte ya niroo ñoom la ñuy lënkale ñaay déggoo ñoo mën a ànd kon bàkkaar yu rëy yooyu ba nga xamee ne bokkaale daa njabar daa déggoog bokkaale daa déggoog faat bakkan ndaxte mucc na njabarkat bu bokkaalewul mucc na kuy dem ci njabar te du bokkaale mucc na njabarkat bu jéemu la faat wala gu dimbalewul kuy faat gis nga yonent bi sallallahu sallam ki nga xam ne uutiya jawaami il kalim mu dal di anam yooyu kon loolu nañ ci dal di bàyyi xel jafe-jafe boobu fu ñu toll da gis ne mbir doy waar ci ne te borom xel mu ne nag war naa xam ne taxawaay boobu nu mu war a mel ibadallah wa amma al في هذا المجتمع فمن مظاهرها انتشار الفرق المختلفة في المنهج والعقيدة وكثرة الحفلات والأعياد المنصوبة إلى الدين ولا يكاد يموت شخص إلا وله يوم ذكرى إما يوم الثالث أو يوم السابع أو يوم الأربعين أو في نفس اليوم الذي مات في السنة المقبلة إنا لله وإنا إليه راجعون وإحداث العبادات غير المعروفة عند سلف الصالح ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قبح البدع وخطورتها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد man rudda amaluhu yawma alqiyama kaana min alxaasirin wal iyaadu billah mbokk jullit bi dee li jëm ci bidaa boo seetee suñu société dana lu bëri loo xam ne da koy wone bokk na ca la koy wone wuuteeg jullit yi kuréel yi am dal di wuute maa anna al wal qudwa Mustafa sallallahu والكتاب الذي نحتكم إليه واحد هو القرآن واسم الدين واحد هو الإسلام إذا ما سبب الاختلاف الإحداث في البدع لولو جايوني أي بدا ووتي في ووتي ووتي تي بروغرام ووتي تي باس باس كي كينو يامو كن لا ويالا كينو رويلو كن لا ويونتبي صلى الله عليه وسلم téere bi mu wax nañ ci àtte woo benn la muy alquranul karim melo bi mu ñu jox ñun ñëpp nañ ko askanale suñu bopp benn la muy al islam kon na fa limaza al ixtilaf lan moo tax ñu wute mooy bida am na koo xam ne la mu yore tibbeewu ko ci quranul karim keneen jël leneen keneen jël leneen keneen jël muy ay kuréeli kuréeli kuréel kii fas lii kii fas la le kii mel nii kii mel le kii woote jëm fii kii woote jëm fale dara defu ko illa al sos ci diine dong gént naa xelaat naa yaakaar naa man naa ne faqat loolu moo ko indi loolu nag maa anzalallahu biha min sultan ba yooyu baree borom bi subhanahu wa taala mu ne ay responsable waaye borom bi subhanahu wa taala moom diglewul àndu ca in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan du dara ay tur rek tur rek yi fi maam yi def wala maamu maam rek ñu ñëw jaar ci borom bi subhanahu wa taala mu ne mosuma ci lay mu ngi mel ni musriku makka laata uzza manaata thalithatan ukhra asma turu kese la woon yu ñu fekke woon seen maam wa kadhalika hadhihi alfiraq allati nantami ilayha kon kuréel yu wuute yi nga xam ne ñu ngi ci jëmit sabab bi yëpp daal mooy sababul bida ci loolu moo ñuy won ne léeg-léeg itam nga gis ci suñu société wuute boobu ñu wuute amaan na sax ku dee rek am nga bés ndaje yu bari feet yu bari ku dee rek am nga bés ku dee imma bésub ñetteel ba wala bésub juróom-ñaareel ba wala bésub ñeen fukkeel ba wala bu at mi dellu si waatee lii yëpp in hiya illa asma ñun rek ñoo ko ko mais laysa min ad-diin shay ku faatu moom nañ ko ñaanal rek allahuma axfir lahu warhamhu wa sabbit mantiqahu inda al-mas'ala defee yiw di ko ñaanal allahuma axfir lahu warhamhu jeex kon yooyu yëpp lan moo ko indi mooy albida coono yooyu yëpp nga xam ne gis nañu ko wala sos ay jaamu yàlla yoo xam ne salafu saalih xamuñu ko woon yonent bi sallallahu xamu ko woon sahabatul kiram xamu ko woon suñ ko jëlee ihdas siddi bonuk bidaa yéesuk bidaa jafe-jafek bidaa doy rek ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne diine jii ku ci yokk lu ci bokkul bés penc ñu delloo ni ñuy xamee bokku ci keroog ba borom subhanahu wa taala waxee al أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا la ca bokkuloon boo ko ci buggee boole mooy bidaa lépp lu ci bokkuloon keroog ba borom bi addoo boo ko buggee wax ne diine la loolu mooy bidaa loolu moo tax imaamu malikin rahmatullahi alay mu ne lu ci bokkuloon keroog manta nekk tey diine ndaxte yàlla lu leer la wax matal naa mottali naa bég na matal naa mottuli naa gërëm na xanaa kon borom bi daa waxoon ne mat na te matul xanaa daa waxoon ne mottuli na ko waaye am na lu des xanaa da koo fekk matul kon ñett yi boo ko dajee rek na nga yem ca la nekkoon keroog diine noof laay dal di am beneen waxin bi moo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku jëf-jëf te ndigal bi bàyyeekoowul ci moom mu ne bés ba ci delloo la ndaxte moom lañ la royloo kon loolu doy na jafe-jafe taxaw fii di sonn di góorgóorlu ba dajeeg borom bi bés pénc ñu ñoog gi sa dossier borom bi ne la awma ci soxla kooku fitna la kooku musiba la yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala yal na ñu teg ci yoonu njub